article deux cent soixante dix neuf moo définir lan mooy terrorisme te ci article deux cent soixante dix neuf boobu boo ko xoolee dañ ne association de malfaiteurs bokk na ci loo xam ne boo amee rek procureur mun na la toppee terrorisme li ñu def tey état bi mooy dafa fexe ba article deux cent trente huit bi nga xam ne moo doon wax lan mooy association de malfaiteurs mu fexe ba tey ni ko bindee woon bu njëkk parce que bu njëkk dañ ne bu ngeen formé kuréel wala ngeen formé mbootaay te li leen taxoon ngeen def ay ñaawteef loolu association de malfaiteurs mais tey dañu ne rek tout attroupement association de malfaiteurs en réalité état bi dafa criminaliser tey droit à la manifestation droit à la marche ak liberté d'expression démocratie li ko lal mooy droit à la différence mooy expression plurielle mooy nga mun a xeex pacifiquement ki jóg ne man damay manifester pour démocratie bi jëm kanam kooku li ko tax a jóg du terrorisme kooku bu ubbee prox ndoll ba mu mun koo topp ci terrorisme loola nekkatuñ ci démocratie nekkatuñ ci république donc tey am nañ ñu ko lancé